Rewmi 24 TV dal leen ak jàmm samedi 29 juillet 2023 manifestation yi ya ma ngay gën di métti ginnaaw ba ñu arrêté Ousmane Sonko ni ki rek instant bi fii ñuy wax ak ministre bi di Abdou Karim Fofana mom dal dal dinay rawale njabootam yépp daal yóbbu leen ca benn hôtel fii ageni, wax ak yéen nii kon ñoom ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ci waa bokk ña ngay wër di daw di wut fu ñuy latu ji kiri ñu rek di Abdou Karim Fofana ak famille am yépp daal jamono yi ñu ngi ci benn hôtel bu ñuy wax Baobab kon daal foofu la affaire yi toll yaa benn bokk ña ngay daw di làqatu ji ginnaaw ba manifestation yi dooree ndax fi mu toll nii gars yi commencé di leen identifier di taal seen i kër ak taal seen oto di dal ci seen kaw ñoom manifestants yi kon daal fii ñu toll nii affaire yi mi ngi bëgg a ëpp ay loxo Abdou Karim Fofana nag kon daal dinay daw dem ci hôtel ba làqatu moom ak famem fii ñuy wax ak yéen nii